بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa baad nusallimukum bi afdal taxiya ala wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk jullit yi mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu tabarakallahu ngeen ñëwaateeg ñun ci suñ site bu mag bii di fkr 92 point com ci seen émission bu mag bii di kenn du sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey nag ñu fas yéene waxtaani tomb bu am solo fas yéene waxtaane tomb bu mag a mag a mag boo xam ne moo tënku si li ñuy tuddee wéetal suñu borom subaxaanu wa xam nga yàlla dañu koy wéetal ndaxte suñ borom subaxaanu wa taala kenn waru ko bokkaale ak dara yàlla danga koy gëm wóolu ko te doyloo ko waaye yàlla kenn mënta jël yàlla def si xool ba pare jël keneen def si yàlla day nekk ak yow ti doo ko bokkaale kenn yàlla moom dafa fiir si ay mbiram moom dong la mooy la ko wax si fatiha iyaaka naabudu wa iyaaka nastain iyaaka yow dong yow yàlla naabudu yow la ñuy jaamu kon keneen amu fa place wa iyaaka te yow dong suñ borom subhanahu wa taala nastain si yow la ñuy sàkku ndimbal moom la Cheikh Seydi El Hadji Malick di wax si fala budda nan fala budda min shakwa ila allahi kurbati fa ma liya gayra allahi jaabiru kasrati wa qaria ya baabal gayri yaa rabbi lam yufid lidaaka sarafna naxwa baabika wijhati mu ne falaa budda munta ñàkk min shakwa li ñuy tawat ilallahi waruñ ko jëme si kenn waaye ilallahi kurbati suñ ay njàqare ak suñ ay jafe-jafe si yàlla lañ ko war a jëme kon yàlla waroo ko bokkaale kenn lu tax nga ko fay jëme parce que aajo bi moom rek moo ko mën a faj moo tax Maodo ne fama liya gayra allahi jaabiru kasrati keneen ku dul yàlla li nga xam ne am naa ko si jafe-jafe ak si ay rëq-rëq ki damm-damm keneen mënu ko fànq Maodo ne na wa qaraa baabal gayri gis nga la jiitu loolu amoon na kuñ ma tegtaloon amoon na keneen kuñ ma njëkk a wax ay mbiram ma dem fa waaye nag nee na loolu jariñu ma nee na waqar aya fëgg na baabal xayri buntu beneen waay ba ma ko fëggee nag yaa rabbi lam yu fit nee na loolee jariñu ma dara lidaaka saraf naa naxwa baabika wijhati bañ xamee ne kenn mënul lenn ku dul yow si lañ tourné bàyyi ñépp ñëw si kon kenn du subhanahu wa kon yàlla subhanahu wa taala nit waru ko yemaleeg dara moo tax suñ borom nee na ki ma bokkaale du ma ko baal du ma ko baal nee na lu dul moom nag dinaa ko baale inna allaha la yagfiru an yushraka bi waaye nag wa yagfiru ma duna dalika liman yasha nee na inna allaha yàlla laa yagfiru du baale ay yushraka bi ki kay bokkaale du ko baal waaye nag wa yagfiru maa duuna dalika liman yasha lu dul bokkaale rek yàlla dana ko jéggale subhanahu wa kon ni si doomu adama bi di déggee mooy yàlla ay mbiram soo koy topp waroo ko jaxaseeg len ndaxte def na wa atiu allah wa atiu rasul ndaxte yàlla ginnaaw moom sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nañu jëlaat lépp ñu jox yàlla nañu bàyyi lu xew rek ñu yaakaar la nit la Sëriñ Tuubaa nee na an nafa wa durru min arrahmani laysa min albidaani wassudaani nee na doomu aadama bi li koy dal ay nattu jugeewul si nit ku ñuul jugeewul si nit ku xees lépp moo ngi jugee si borom bi subhanahu wa taala alquran wax na ko qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana huwa mawlana wa ala allahi falyatawakkalil muminuun yàlla nee na lépp loo xam ne nit ki loolee dal na ko nee na dafa nekk loo xam ne illa ma kataba allah loolu ñoo ko farataaloon demb wa huwa mawlaana ndaxte yàlla suñu buur kon tabaarakallahu ñu moytu tey bàyyi xel ne subhaanahu wa taala du moroom du maas kenn waru ko booleeg lenn kenn waru ko booleeg kenn gis nga yeneen ci yàlla yusuf alayhi salaam bam nekkee ci kaso bi yàlla dogal mu nekk fa ak ñaari mbokk ñoo xam ne dañ leen jàppoon kenn ki sun borom xam naa ne dañuy bañ a détaillé muy gudd xissa bi du fi xaj waaye dafa am lu ndaw rekk benn extrait bu ñuy jàngale si wóolu yàlla ak doyloo ko rek kenn ki si boppam jën ba muy jën Yuusufa alayhi salaam jox ko yóbbante ne ko waxal buur bu ma fàtte yàlla di ko xamal ne yow buur bàyyiwu la fi man maa la fi bàyyi di li la fi si man la jugee maa ko dogaloon démb tey soogay ñëw kon doomu aadama subhanahu wa taala dafa organiser lépp si moom ti yàlla du jum yenent bi sax yàlla daf ko doon wax ne ko wala taqulanna li cheyin inni failun dalika gadan illa an yasha allah واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا kon subhaana wa taala da doon jàngal sax sayidina Muhammad ne ko gis nga même sax bala ngaa jëf dara tudd ma man waaye bul tudd keneen loo wàcc pour ëllëg na nga si jiital yàlla loo programme pour ginnaaw ëllëg jiital si yàlla subhaana taala waaw ndaxte yàlla du moroom du maas yàlla du moroom du maas xam nga li alquran naan qul idcu llaha aw idcu arrahman ayyama tadcu falahu alasmaau alxusna wala tajhar bisalatika wala tuxaafid biha wabtagi bayna dalika sabila wa qul alhamdu lillahi alladi lam yattaxid walada walam yakun lahu sharikum fi lmulk gis nga walam yakun lahu sharikum fi lmulk walam yakun lahu yaani yàlla nekkul koo xam ne sharikum fi lmulk nit dana bokkaale ak moom du bokkaale kenn ak nguuram gi ci walam yakun lahu waliyum min azulli wa kabbiruhu takbira ci yàlla moom mi ngi la lépp yàlla kenn juru ko li alquran di wax si suratu ixlaas xam nga yàlla def na yenent bi qul waxal yow muhammad huwa allahu ahad ne yàlla kenn la du ñaar allahu moom yàlla assamadu moom la ñépp jublu mooy faj aajo yépp te kenn faj aajoom lam yalid moom jurul kenn waaye nag walam yuulad yàlla kenn juru ko walam yakun lahu te amul sax kufuwan ahad yàlla amul nawle kon kooku kenn du ko bokkaale kenn kon yàlla amul moroom amul maas moom subhanahu wa taala nañu bàyyi xel ne moom lépp lu ñuy def moom lañ si war a jiital di def ay ndigalam di bàyyi ay cëram yan nañu yàlla boole si ñi nga xam ne ñoo naan sami'na wa ataana dégg nañ te topp nañu ci yàlla musal ñu si ñi nga xam nañoo bokk si sami'na wa asayna dégg nañu waaye faale wuñu yàlla nañ si yàlla musal mbokk yi xam na li ñu amoon si waxtu jeex na ñoo ngi àndoon ak suñ caméraman bu baax bii di Omar Rasoul yal na yàlla yokkaa dëgëral yàlla taxaw ko si barke Sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii lañu ñu si waxtu xam naa danañ continuer suñu émission si tawxiid in nuridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh